laqil lisaani waxlulan minhu lmuqad wacalhu dakiran wa shakiran abada wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki daara ji waa ëtt bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu leen siyaara di beral nuyu siyaara waa daara xikmatul yawmi numéro 1 ak 2 ak 3 ak 4 ak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 ci ñu bëgg bind seeni doom wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo jógee ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaqa hafisahullahu waraa yàlla na ko suñu borom sàmm te aar ko te may ko fan wu gudd lool ak wér ndax kilifa gu mat kilifa la te kilifa gu dal xel la te kilifa gu am yërmande la ak yéene ci njabootam xikma bii nag mi ngi ko jëme woon ci ak taalibe te ku ci ràññeeku la royukaay la ci bu mag a mag moom ak cheikh Mouhamadul Mountakha ab murid saadiq la cheikh Mouhamadul Mountakha dafa waxoon ne man de sama kilifa dama koy bàyyee sama bopp bakkoog boppam dama koy bàyyeeg sama bopp ba noppi bàyyee ko bàyyi boppam loolu nag wax ju rëy rëy la te it lu jafe-jafe la ci jamono ji ñu toll bu ko man damay wax ne ku sa bopp jaaxal ba nga joxe ko nag damaa xamul lu saw yoon ci bopp jàmbur waxuma la ak bopp ka nga jox sa bopp. Cheikh al Xadim sunu yaakaar de ba muy jàngale melo yi murid sadiq lii Cheikh Muntaxa wax mooy ñaare da ko àndaale dafa wax ne sifaatu sadiqil muridi bixtisaar arbaatun nazamtuha xawfa ixtiraar as-sidqu fi mahabbati cheikhi abad suma imtisaalu amri ay suwarat wa tarku li ictiraadi mutlaqan walaw bi baatirin alayhi fi ma qad rawa maahu salabul ixtiyaari li wasni zannihi bila inkaari fa kullu man jamaa sifaat min al muridina fa yudriku siqaat meloy murid saadix kat ñeenti la dama ko woy nag ngir bañ ngeen woru moo tax ma leen koy leeral daal di wax ne ba ci njëkk mooy bëgg sa sëriñ te muy dëgg ci yow ñaareel ba bu la digalee nga daal di jëf fa saasa te bañ koo waaj ñetteel ba nga bañ koo jox ndigal mooy nga bañ koo gaaral dara mooy nga bokk ak boppam kon ñeenteel ba moom mooy eh, nga bàyyi ko sa bopp bul def bu la digalee nga tànnaat ca ndigal la wala nga ne da koo xamewut ni waaye nii moo gën kon loolu mooy ñaar yu mujjee mooy bakk boppam bakkook sa bopp mooy li Cheikh Mouhamadou Mountakha wax mm, murit saadix yu njëkk yi nga xam ne ñoo njëkk a jaayanteeg sëriñ bi de noonu lañ doon doxee sëriñ Dame Abdourahmane loo nga xam ne kenn la ca bi sëriñ bii dem ci géej gi ci baar yi ba muy laaj xalaat ba agsi ca moom ba mu ko laajee luy xalaatam ci mbir mi sëñ Dame dane ko man kat ku naan yàlla nee na du ko joxub xalaat defal li la yàlla digal te digal ma loolu sabab na bi Sëriñ Tuubaa demee ci géej gi am na leetar bu mu ko doon bind waaye firndeel na ko ci rek ab murid saadiq nga ayyuhal muridu saadiq allazi fanaa fii ka fanaan i filla yow murid saadiq bi nga xam ne ni kat jeex nga ci man ni ma jeexee ci yàlla kon képp ku bëgg jëriñu ci sëb sëriñ noonu ngay mel moo tax Sëriñ Tuubaa dañu ko jàngal ci nax ju ne na mel ni ab néew ci kanam sab sëriñ maanaam nanga mel ni ab néew ab néew ko du wax ña koy sang tooyal leen fii wala sottil leen ma fii wala walbati leen ma déedéet moo tax mu ne wakun la da cheikhi ka maytin wadiha bayna yaday xaasilihi tantafia moo tax sañ ba jaxate ci woyam yu neexee day wax ne fexee la mel ni dërëm ngir ab dërëm ku ni mel noppal sa bopp te noppal waaja yor sa mbirit doo gis dërëm naa boroomam te nga jënde ma lëf boo koy fasit du ko naa ay waa ji mbaa du ma kon képp ku bëgg a jariñu ci sëriñ tubaa noonu ngay mel waaye jamono ji nag sëriñ bi daa waroon a wax nangam ak sëriñ bi warutoon a wax nangam wala waru ko woon a waxee nii ak sëriñ bi daa waroon def nangam ak sëriñ bi daa warutoon def nangam wala wala waru ko woon a defee nii lu siiw a la te képp koo xam ne yaa ngi doxee noonu kat ci sa kilifa baatub taalibe moo nekk ci yow waaye jëfi taalibe moom nekkul ci yow te ak taalibe kat lu ñuy jëf la waaye du lu ñuy wax. am na ku ñëw ci Serigne Touba ne ko damaa bëgg a mu ne ko ana loo jublu mu ne ko bëgg loo ma digal ma di ko def loo ma tere ma di ko bàyyi mu ne ko wool fere yi fi ne ba mu woowee ña fa ñëpp sëriñ mi ne ko waxal la nga waxaatal mu ne ko man de mbàkke damaa bëgg a jébbalu ne ko ana loo mu ne ko bëgg loo ma di ko def loo ma tere ma ko baax sëriñ mi ne ko déglul jébbalu kat ay wax la rek boo ko waxee dégg nanu ko boo ko jafee jàpp nanu ko kon lu ñuy jëfee la waaye du lu ñuy wax boo ko waxee te jëfee woo ko itam amul jariñ kon nag nañ gën a fonkaat sunu taale bi gën a laaxu saayowaat te bàyyee Serigne Touba sunu bopp te bokk ak boppam ñoo ngi soññaat sunu bopp ak mbokki taale bi yëpp ci liggéeyub daara Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ci ndigalul Cheikh Mouhamadul taxa ak ñaanam bu wér wér nag daara ji itam ubbi na fii mu agsi itam mbokki taalibe yi bokk nañ ci ñi ko fi agsil kon ñoo ngi ci soñ soññaat sunu bopp di ci soññewaat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 in uridu illa al islaah mastataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim